nuyoo baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñu toppee ci émission mag bi di dakaar Buzz Social tey Dakar Buzz Social jógee ba dakaar ñëw ba fii ci cees seeti fi suñu benn frère boo xam ne daf feebar li may wax rek Dakar Buzz moom bëgg na foo doomu aadama nekk rek te am yitte ci Dakar Buzz ñu def la tout pour mën laa fekk fa nga nekk wala toujours ñuy génn léeg ci àll bi tey sax soriwul ñu ngi fii cees may sant yàlla di gërëm nag ñu ni jàppale ci émission bi muy bonne Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal ak ñi nekk euh, ci àll bi maanaam diaspora bi nga xam ne niveau bu émission bi yegg rek ñoom ñoo ko fa yeggale di gis aussi itam ñaan yi may ñaanal yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp te yàlla nangu ko te wisaare ko ci àdduna bi yëpp rawatina ñi nga xam ne ay bon volonté nekk ci àll bi di liggéey te amaguñ ay kayit seen xel lépp li ci nekk mooy jàppale ñi nekk Sénégal tàmbale ko ci groupe yi Dakar Buzz sociale an taxaw ñu wérati ñoom seen Jili Ndiaye sëñ Mamor sëñ Xaadim saar soxna su mu borom daal ak Diop Baye Saliou ak um, Dakar ba sociale bu Amérique soxna seen bu jiite ko moom ñoom àndal ak ñoom soxna Ndey Binta Fall nekk ci Amérique ñoom tam di yëngu social di waa yàlla kese ak suma rakk Mouhamed Amar Girif Sougou Anta Sey bari naan macha allah soxna Awa soxna Alima soxna Fatou Ndeye Absa Lo allah jàmbaar yooyu nga xam ne tey su may dugal kaas sama xel bu demee ci ñoom rek sama xel dal. soxna aji ñuy jàmbaar yoo xam ne donte àll ba neexul mais li nuy bàyyi xel Sénégal dafa bari ku ci ne bu weddee li nga comp li nga xam ne naa ko yónnee ñi néew doole Sénégal rawatina malaati yàlla mi am fay yàlla na leen fay yàlla jàppale leen euh, ni ma ko waxee nag ñëw nañ tey fekk ko fi malaat bi nag li tax mu métti mooy dañ ko génne hôpital pour mën a def moom émission bi parce que dafa sonn te hôpital ku ne xam ne la fa nekk soo fa tëddee dafay laaj ay moyens loolu su fekkee new fi dafay xaw a compliqué. loolu waral ñu ñaan waa hôpital régional bu Kees ñu mën nu may ay ñu mën a génne malade bi def moom émission bi delloowaat ko dañuy def ak moom émission bi nii suñ paree day delluwaat loolu lépp moo lay wan ne jafe-jafe yi mi ngi fii ci ñi nga xam ne seen doole jotul seen ginnaaw feebar bëgg a faju day metti su bu fekkee nag sa doole bariwul mais sant yàlla rek euh, nga xam ne euh, yéen a ngi ñu ciy jàppale di wax dërëm bu ci waaye def ko yàlla barkeel ma laaj ko li ko daal kañ la ak nan la. ku baax nuyu naa la. waaw du ngi lay fay grand. bi nan la man Mamadou laa tudd Mamadou Sall. Mamadou Sall. Mhm. Mamadou la dal. man aplasie médullaire laa la. mooy bonne façon feebar. waaw boobu mooy feebar boo xamante ni dama mos a toog un jour ndey may commencé di sañe à partir sama signe yi quoi. Mhm. léegi ma wax ko sama frère bi na ma xëy na brosse ni ngay brosse moo des may ay dagg-dagg sa signe boobu noonu. mais maa ngi doon xool gisuma benn dagg-dagg si signe yooyu noonu ndey daa saa fu ma toogee damay faral di naaj lu bëri bëri bëri bëri fois ma tëdd si guddi bi ah, may yeewee noonu dama gis dara beeg sama yaram bi yëpp takk deret léegi benn jour ma xëy wax ko sama maam. fa lay génne si gémmiñ wala. gémmiñ waa si si boppam lay génne nde ko maire bi nag léegi moo ko expliqué mu jox ma xaalis na ma dama hôpital ko nde moo ñëkkee hôpital dixième ne gis masin bi. léegi moo ko expliqué loolu noonu dafa tombé juste sama bopp tam dina méttaale quoi léegi moo ko expliqué affaire bi nu mu demee mu bind ma ay garab ne jox benn papier ne naa dem xool odonto quoi léegi ma xëy ma dam si dentiste bi xam nga léegi ma jox ko papier bi léegi ma xool nekk si bëñ bi nee na kari la xam naa léegi ne dañ koy raxas après ñu doom ma baay quoi. léegi bu ma xëy benn jour sama maam jox ma 10 000 ma dem ba si odonto bu ma fay 10 000 bu gars yi raxas bañ yi quoi léegi bi ñu koy raxas noonu nag léegi sàmm di gën di génn nag day dem ba ñëw kuk kuk kuk kuk léegi nag ñu bàyyi ma dem ñibbi ñoo affaire sax da leen parce que gisuñ mësuñu gis lu mel noonu quoi léegi ñu jël ay eau oxygène ay bicarbonate ma koy galandikoo yooyu noonu mais teewul sàmm taxawul ko léegi bu ma ñibbee kër ga léegi ma toog quelque temps may commencé di miir. xam nga bëti gisatul bu baax may bëgg a daan to mais juste après sama benn sër gis ma mu wax ko maire bi nde maire bi daamee koy woo sama tonton bi daa koy wax ko nde moom mu jógee kër ga jël ma yóbbu ma hôpital Barthélemy léegi def fa 4 bu ma fa ñëwee gars yi ñu defal ma benn euh, analyse bu na NFS léegi moo defee euh, kii bi nekk dama animé lu ma 4 grammes léegi gars yi nam dama manqué deret léegi faa ñu defal ma ay poche quoi. léegi ñu defal ma poche yooyu ba pare ah, léegi bu mu jeexee mais am na benn analyse mu defoon moo defoon bi ñu xoolee nekk sama plaquette sanguine ay yëpp insuffisant woon quoi. léegi bi ñu gisee loolu noonu ñu laaj ma ndax naa ndax maa ngi lekk bu baax yooyu noonu man na maa ngi si léegi ne ma sama yëpp a quoi mais moo leen jaaxal mais xamuñ day cause bi quoi léegi gars yi bàyyi ma dem ñibbi moo toogaa quelque temps ma gis sama yaram bi yëpp commencé di def ay tache tache deret léegi un jour ma summi sama souvenement ma ko summee nag ginnaaw bi daf ay ay tas tas deret yu bëri léegi ma toog quelque temps may commencé di weex di weex taal taal de ku ma romb na ma booy yow weex nga de weex nga fekk yow dama doon sañe si biir quoi léegi sama ma xëy benn jour dem ci toile di tuur ndox si biir douche bi laa daanu léegi biñ ma ñu woo sama benn tonton bi mu tam mu jël ma mu yóbbu ma hôpital régional léegi bu ma ñëwee foofu jël naa route nationale lu mot ay vingt postes léegi saa fu ma rusee soo poos bi damay tane léegi fu ma toxee quelque temps te aw ma ko rek damay daanuwaat quoi léegi am benn analyse bu moo defoon na biopsie analyse boobu moo ko defee nag dama trouvé fer bi quoi na aplasie médullaire la àndal quoi. léegi ñoom wax nañ la mën nañ ko faj. waa nee waxuñu mën nañ ko faj parce que nee nañ faaw mooy euh, greffe quoi greffe mooy osseuse quoi mhm. greffe boobu noonu Sénégal ñoom. ñu ko ko ne mënuñu ko def ne nañ waaw léegi nee na faaw Europe te Turquie moo gën a mooy cher yeneen dëkk yi day xaw a cher quoi. Turquie seen bilan waaw boobu bilan dana ba ay quatre vingt bu Turquie bi. bu Turquie bi moo gën a yomb. te moo gën a yomb waaw. wàññi nañ ko wala. waa gis naa beneen bilan beneen kii bi somb gars yi duggaloon d'après ñoom maa ngi gis ay plus de soixante-quinze million ko mais daal amul lu gën a mooy loolu. non gis ma lu gën a mooy loolu. cent trois mille sept cent ñaata ci CFA. jërëjëf soixante seize million mooy global bi pour Turquie. Euh, loolu mooy li gën a yomb ak accompagnant bi nga xam ne moom lay àndal lépp daal soixante seize million la plus plus lépp mooy lépp daal. presque ma xool quatre vingt millions. lépp global ça a combien. soixante seize millions. soixante seize millions la pour Turquie kon ngeen dégg lim ci wax lépp soixante seize million nag xaalis la boo xam ne du xaalis bu ndaw kon li ñuy njëkk def mooy tàllal ci loxo état ñaan ko parce que ñun ñëpp moo bokk jaboote te daf ci am somme yoo xam ne rek bu tollee fenn fi rek. faw ñu dugal ko ci ne su fekkoon som boo xam ni la euh, demeewul noonu danaa ko mën a bàyyi bon bonne yi ndax wax dëgg yàlla kenn mënu leen sama jàmbaar yooyu nga xam ne kaa bu ne décanté nañ situation ba kon bu loolu dikkee day tool foo xam ne wax dëgg yàlla ñoom buñ ko bëggee àngu day metti mais du tee kenn ku dee dugal ci ñaxam rek mais liñ ciy ñaan jiital ci daal mooy état son excellence monsieur Macky Sall ñu ngi lay ñaan yow ak sa soxna ma dem Faye Sall parce que bari na cas yoo xam ne bu nu jaaxalee rek yow nga réagir ñu ngi la ci tàllal loxo bu baax a baax a baax tam te xam ni kuy bàyyi xel social bi nga ñu ngi ñaan nga jàppale suñu frère bi teew tam ñuy ñaan bon volonté yi li may wax rek ndax lu may def yéen laa ci gën a jiital ndax saa bu ma jaaxalee rek yéen ngeen décanté situation bi nga xam ne maa ngi koy dund ak malaat ma leen ci sant leen gërëm ndax def lu baax. sa bopp nga ko defal àdduna moom li may wax rek ku xamul sa ëllëg loo mën ci lu baax di nga ko def def ko ndax fu nu jëm lu baax du fa doy te sa mbokkum jullit mu sonn nga dimbali ko jaamu yàlla féetewu ko kaw euh, sonn na xale la euh, actuellement il est jeune ñaataan nga am. am naa 22 ans. am koo jabar. non amaguma jabar. xale la kon xam nga ni kon daanaka mi ngi door a dugg ci buntu àddunaam loolu nag dañ ciy tàllal loxo rek lu ci waay mën ci lu baax nga def ko ci turki la war a dem. ndax mooy bi gën a moyen cher bi ñu gisee bi gën a moyen par rapport ak Europe parce que Turquie bu la laajee soixante bu la laajee quatre vingt mille millions bu fekkee ci yenn euro bi la pays euro bi di nga fay cent et quelques millions xam naa ne kon ñu ngi ciy tàllal loxo lépp euh, quatre vingt hmm. ah, trop taal moo nekk di mémorial foofu la war a faju jee d'accord su paree dina ko jël yëpp kon kayit yëpp yemb na li des mooy fond bu nga xam ne moom lañ koy jàppalee pour mu mën a génn. ndax kenn bi dafa laaj ay mooy nekkul loo xam ne euh, lu benn nit di jël la ñu ngi ciy tàllal loxo nag ñëpp ku ko mën a jël en charge ñi ngi la ciy tàllal loxo ku ko mënul tam lii sa loo ci jël rek nga jàppale ko ci mën dem def faju ñëwaat ci jàmm parce que vingt 22 ans xale bu ndaw la yàlla nag moo ñëw ak nattoom tey jii euh, som bi tey xaw na élevé parce que nekkul som bu ndaw tam lan ngay wax bonne volonté yi ñu gën la mën a jàppale ci wàllu paj bi rawatina suuf si nga xam ne mooy état. waaw di wax ñëpp def seen loxo surtout sama mbokku jullit yi ñëpp def seen loxo quoi parce que nekkul som loo xamante nii lu ndaw loo quoi sama famille ñu ngi si jàppale mais lépp ñoom mënuñ ko quoi di ñaanal tamit bi euh, Macky Sall président de la république maanaam Faye Sall Faye Sall mais la première dame ñu jàppale bu baax ak bon volonté yi tamit ñu mel ni comme waa Sénégal. waa waa mhm. ni jàppale ma si bu baax baax tamit quoi mhm. parce que bon depuis 2016 maa ngi feebar def naa lu nekk wér mais yàlla dogal ma est ba fii ba 2022 bi affaire bi yàq yàq na sama jàng tamit quoi te bu naa ko ne sama jàng tamit ma am lu ma si bëgg incha allah quoi. incha allah nga doon def. man bu ma ñëwee ba première la jëkk arrêté ne toog naa trois années yoo ne ma ko invalidé woon quoi. léegi sama benn tonton gis ma ne mën naa bàyyi enseignement général bi dem si enseignement professionnel bi quoi léegi maa def formation fële centre d' enseignement professionnel bu nekk Rési mais semaine de fer maa ngi fay def sama deuxième année nii war def examen ko léegi na année scolaire bi muy débuté noonu rek si la jékki-jékki li dal ma quoi. Mhm. nooy jànkuwuteel ak douleur yi métti bi nan nga dund ak moom parce que nee nga 2016 ba léegi nooy jànkuwante fer bi jóge ko daan. waaw man saa yu ma toogee des damay jékki-jékki commencé du lox dafa may lox damay crise en plus tamit damay am méttitu bopp te damay faral du tamit damay palpiter damay gaaw a sonn mënu ma dox diggante fii ba fële te sama xol bi yëngul ko mhm, mu sonal ma trop des fois damay tëral guddi bi sax. Mhm. parce que ñu ngi gis ci vidéo bi ma envoyé yaa ngi ci hôpital bi tëdd ñu lay defal ay ay pose de sang. Mhm. da delluwaat léegi. waaw damay delluwaat léegi bu nekk si poste de sang bi comme instant nii te diñ ko diñ mu diñ ma voilà te poste de sang yow moom moo may sauvé quoi pour le moment nii di nekkoon tey poste de sang kon leneen la ñuy wax quoi. Mhm. loolu lu lay may la wala looy jënd. non li ñu may may la parce que sa euh, hôpital bi temps yii ne affaire yi xawoon na parce que dafa dama banque de sang woon sang parce que foo xoolee dëkk bi kenn moytu woon quoi léegi pour ñu la plus. pas plus quoi léegi pour ñu may la faa nga say donneur des fois foo may nga toog trois mois nga door a mën a may voilà. te loolu semaine bi ñaata ñaata ci jël. semaine bi mu xool moo defee NFS bi keroog instant jënd naa trois postes reçu naa trois postes quoi pour le moment waaw. Seydou muy lu metti loo xam ne daal fa coono yam daal fa la tàmbalee parce que euh, boo demul jël deret bi du ne ci jàmm. wax na ko sànq li tax mu mën lii sax ñu mën ko defal interview bi ñuy wax muy wax c'est parce que dañ ko defal prévision yi ba pare te buñ paree fi dafay delluwaat kon feebar la boo xam ne mënul dëkk ci loolu ñu koy may deret parce que day tollu période boo xam ne faj ko mu jeex daar daar day gën kon muy lu métti loo xam ne daal gis ngeen ne mi ngi koy dund xale la nag dañuy tàllal loxo jaamu yàlla yi ñi nga xam ne jàpp na ne li ñu yor suñu borom leen ko jox te a jox pour ñu jàppale ndax li may wax rek ku yàlla jox fukk de la séddale nanu bàyyi xel ñi néew doole te xam ne yàlla mi ngi ba bëtam bi te gis na lépp jàppale ko soon nag sa bopp nga jàppale ndax àdduna dara continué wul yow mi joxe mën nga dem bay laaj ndax àdduna moom lu ne mën naa am kon bu la yàlla dimbalee may la xéewal rek te mu leer na la lii la suñu borom jox mën nga cee jàppale doomu aadama yi jàppale ci doomu aadama yi te xam ne yàlla gis na te ku lebal yàlla yàlla fay la di sant yàlla nag ci plateforme boobu di 78 611 11 muy plateforme Dakar Buzz social bi nga xam ne ku nu bëgg jot fa nga nu jotee en même temps bon volonté di fa yónnee tam seen dërëm ak seen ñaar dërëm ñu koy jàppale malaat yi ndax li may wax rek Dakar Buzz tey bu yoroon lu mu malaat du ñaanal ndimbal kenn moo koy génne ak ci propre joxe ko mais comme mënu ko te lu baax la te boo ko wootee bëgg ku ne dugal ci ñaxam moo tax ñu joxe plateforme boobu teewul tam gis nañ ni ngeen ci réagir moo xam seen dërëm ak seen ñaar dërëm dinu ko jox ñu koy joxaat maladie comme Dakar la ñu ñëw cees tam te ku ne xam ne ni mooy demeewul noonu ba tax na Dakar ba dina ko jàppale trente mille suñ fi fekkee ordonnance mu jënd ko ci suñ fi fekkee loo xam ne lu mu war a lekk la mu jënd ko ci parce que Dakar Buzz bëggul tourner ak malade bàyyi ko noonu le reste nag mooy numéro téléphone bi ñuy def ci baaru écran bi ku ko bëgg a jàppale boo fa wootee di nga ko jot parce que ñun xaalis du jaar si ñun xaalis bi day def direct ci malade bi ak accompagnant bi bu dee un milliard xaalisam la lu mu mën a doon xaalisam la mais ñu ngi leen ci tàllal loxo di ci jiital wax naa ko sànq Marème fay sàll ñu ngi la ci talal sunu suñu bi nga xam ne yaakaarul ku dul jaamu yàlla yi ñu mën koo dimbali ndax som boobu ñu koy laaj nekkul som bu ndaw kon ñu ngi la ci talal loxo di ci talal loxo tam bépp bonne volonté boo xam ne rek yaa ngi au niveau national ak international ñu ngi la ci talal loxo te xam ne lu ci waay def yàlla moo la koy fay kon Dakar ba dina ko jàppale trente mille bu ñu fekkee ordonnance mu jënd ko ndax malade moom lu mu tëdd tëdd yor ordonnance kon jox ko trente mille nga xam ne Dakar Buzz moo ko jàppale ndax bëggul ñaan ndimbal. seeti malade bàyyi ko noonu te jox ko dara jox ko 30 mille. Seydou Dakar Buzz jàppale na ko 30 000 jëlee ko ci plateforme boobu di 78 601 11 11 comme ni mu koy defee rek bëggul seeti malaat wax ak moom bàyyi ko noonu mu néew mu bari dina ci tàbbal ñaqam te mu ñaan mu barkeel. parce que barina na ñun koy jox ñoo xam ne barkeel na parce que ba ci euh, bi passé rek mooy étudiant euh, boobu nga xam ne tey jii biñ ko tourné ak moom ci aw taal Abbas Ndaw ci la ko état jëloon en charge par exemple moo doon def opération boo xam ne ça fait deux cent et quelques millions ban dégg ma dem fay jël na ko en charge muy ndam loo xam ne ndamal réew mi la ndax buñ tourné ka gis ne am na ñu ko jël en charge loolu dañuy gën a motiver pour ñu gën a xam ne li nekk ni ñaa ngi ñuy bàyyi xel yàlla na ci bii bokk tey teraay bi yàgg na xale nga feebar bi tam xaw na la dépassé xaw na la jaaxal mais jaaxalul yàlla parce que lu ne mën naa am te wér la ni ñaan suñu borom may la ko Dakar ba déplacé wu Dakar ba Thiès di la ñaanal ndimbal jàppale la trente mille nan nga gisee Dakar Buzz. Ah, en tout cas maa leen di remercier bu baax te di leen yàlla jàppale leen ba fu ngeen egg fu ngeen bëgg yàlla na leen bu baax a baax a baax jërëjëf waay. Ah, tey sànq sa frère ba ci yow. waaw di leen gërëm ñoom tamit. parce que docteur bi ku baax la am benn problème ah, muy tudd docteur Camara te maa ngi nii bu baax a baax a baax sama waay la nag parce que moom malade yi fi nekk yëpp mu leen di jàppale bu baax te tamit di lancer benn message boo xamante ni di wax yenn kaay malade yeen yi di wax nañu bàyyi seen malade dem bàyyi ba sonn sonn yenn sonn du ko indi si hôpital yi quoi voilà malade lu mu ta demee da koy sentir leen lu xamante ni yaram bu may loolu jëlee vite fait nga bi ko parce que nekk naa si hôpital gis naa lu ma jaaxal parce que may gis ñoo xamante ni dañuy bawee say maladie sonn ba pare ñu koy door a indi pour ñu fekk yi day fekk malade day dem ba fekk ba gañee waa feebar da koy gañee quoi voilà te docteur yi des dañuy ñëw des fois ñu mun si dara des fois mun dara te seen kattan ñun ni ñuy liggéey quoi parce que nañuy def ni ñu mun mhm. jërëjëf message la bu mu lancé boo xam ne na ko ñëpp bàyyi xel parce que tam yor malaat ci kër di soox ak moom euh, ba mu toll benn état bi day xaw a jaaxal ñamay fekki ñamay fekki tam nañ yeesal yërmande tam ci malaat te xam ne tam euh, àdduna du ñëpp ñoo yem am na ñu néew doole ba tey jii bu seen malaat feebaree pour nu jël ko sax taxi yóbbu ko hôpital c'est tout un problème ñu gën a yeesal yërmande ci bu malaat bu dikkee ba analyse mënta ñàkk scanner mënta ñàkk mais nañ ko woyofal woyofal ko lool parce que léeg-léeg ma tourné ak malaat mu am benn somme somme boo xam da koy téye mais après somme ci li muy jeexee mooy analyse scanner ci lay jeexe tàkk analyse scanner analyse scanner kon li ñuy seet kañ leen koy gis loolu itam daf may daf may a jaaxal léeg-léeg ma tourné malaat mu yor benn somme mais dama naan ko foo toll mu ne ma analyse scanner analyse scanner may def loo kon li ñuy leen koy gis ñu bàyyi xel ni kii ñaan ndimbal tam buñ ko defloo analyse yu bëri tam li mu yoroon day lekkaat da koy jeexaat te ba tey ko faj di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi taxaw ci wàllu médecine di ñaan yàlla gën leen a yokk jàppale leen te état gën leen teg loxo ndax tam léeg tam ñoom ñu bëgg a jàppale malade mais tam seen jumtukaay day xaw a des di gërëm tam major Kumba di suma xarit nekk ba Dantec di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne Dakar ba Thiès ak fond nee na tam ñu ngi gërëm population Thiès ñu jàppale malaat bi di leen ci tàllalaat loxo lu ci waay mën nga def ko ci fondation yëpp ak bonne volonté yi nekk Thiès international yi fi nekk ak ñi nga xam ne ay borom teraanga leen tey def ko lu baax ñu ngi leen ci tàllal loxo doomu Sénégal la doomu Thiès la doomu réew mi la nañ ko jàppale te xam ne lu ci waay def yàlla dina la ko fay Dakar ba jàppale na ko trente mille dañuy delluwaat léegi Dakar di micro Fadel mi ngeen tam gis la cadreur bi Seydou laa ci àndal ku ko bëgg a jàppale mi ngi ci barre bi li ko fay yónnee rek ay bokkam nañ ko jot mu mën a def faj gi nga xam ne moom la bëgg ci yaramam yàlla ci yàlla def tawféex ba ma jël siwaat la parce que buñ la jël see nga feebar boo wéree incha allah dama la jël siwaat kon yàlla na nga bokk ci ñuy wér ba ma jël siwaat la. amiin jërëjëf waay maa ngi nuyu waa Dakar Buzz ñëpp parce que man tamit maa ngi suivre à tout moment parce que gis naa sama benn mbokk eh, eh, kii nii étudiant bu mu feebare ñu ko SOD même feebar bi laa àndal quoi gis naa ni ngeen ko jàppale waa ngeen ko jëlee woon voilà ngeen ko jël ko en charge tout ça gis naa ko tamit di leen remercier quoi di ngeen jàppale malade yi tamit quoi yal na leen yàlla jàppale. di nga wér ba ma jël si lawaat la ba nga ba nga wér ba ma jël si lawaat la ba ma takk ba nga tak soon waaw incha allah yàlla na ko yàlla def waay. <laughs> jërëjëf mbokk yi kon yàlla na ci yàlla def barke ba nu ñëwaat ci jàmm jërë ngeen jëf ku ko bëgg a jàppale numéro baag ci arkiran bi jërë ngeen jëf.